ci diggante tisbaar ak tàkkusaan ci weeru baraxlu yàlla suñu borom dafay woote ca kaw ne yéen samay malaayika lakk leen téere yi ñaawtee fi ki wax ñaan gi lépp lu mas a def ci kaw suuf bis ni tey lakk leen ko ba mu doonu dóom loolu sëñ Tuubaa ko bindal boppam moom laa bëgg àndandoo ko ak ñëpp mm-hmm. bu ko defee nag ñi nga xam ne mënuñoo jàng mm. damaa bëgg di wax ñu ciy topp ndax bu xawee gudd tuuti boo ko waxee ba noppi ñoom duñ ci mën a jaar mm-hmm. Mm-hmm. léegi istixfaar la jéggalu suñu borom la mm-hmm. da ngay wax ne astaxfirul laahal عزيم الذي لا إله إلا هو الحي الخيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه درا ولا نفعا wala mawtan wala hayaatan wala nusuran foofu lay am nee na képp koo xam ne wax na ko diggante tisbaar ak tàkkusaan ci weeru baraxlu yàlla day woote ci kaw ne yéen samay malaayika lakk leen mboolem téere ñaaw te fi kii wax istifaar gi woote na fi nii kon kay kon fu mu ne nii yi ñu naan laqad kaana lakum fi fee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw pour vidéo wuñ nga mën ko am bismillahir rahmanir rahim ah, dane ko wax ci diggante tisbaar ak takkusaan gune ci weeru ndayu koor mooy rajab moom lañ génn ak weeru baraxlu wii mooy weeru chaabaan bii ñu nekk fi ne ak weeru yi ñëw bi bëgg a ñëw bi ci topp muy weeru ramadan diggante tisbaar ak takkusaan boo ci waxee astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayumu wa atubu ilayhi توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لول بوكو واخ يا سي ديغنت تيسبار تاكوسان تي ياتي وير يما واخ يالا داي واخ يين سماي ملائكة لك لين اي جيفوم يي نياو مانام بوكو واخ يالا دي ديغل ملائكة يي نين سما جام بي واخ لي لك لين تيري جيفوم يي نياو لول موي نجيغلو يالا kon ñaan gu neex a def la ko xam ne bariwut yomb naa def te bari na ngëneel tax njëggalu yàlla moom ci la lépp xaj لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو كثيرا وقرن في بيوتكن ولا